ñëw ci infection vaginale. Mhm. infection vaginale liñ koy dégg bari na. Mhm. Euh, des fois aussi ci réseaux sociaux yi ngay gis lu nekk ngay gis ci réseaux sociaux yi j'aurais vraiment aimé ko ñu wax ci mhm. ak lan moo ci nekk solution pour ki nga xamante ni aussi vraiment mu ngi këram te amul yenn moyens yi pour pour se payer ces de trucs là wala de pharmacie déjà lan moo koy andi infection vaginale infection vaginale Aïcha bu ñu doon wax cause yi fii ba suba duñ fi jóge ndax leson la waaye dañuy dañ koy yëkkatil bi tuuti. waaw dañ koy dañ koy dañ koy kii rek. nu mu tudd waaw. Euh, primo salte da koy indi. salte. jigéen nañ set salte da koy indi set trop tamit da koy indi. waaw. yaa des femmes dañuy jàpp seen jël seen baaraam di ko dugal ci biir alors que le vagin soto nettoie vagin bi day nettoyé ci biir. danañ ñëw sa ay thèmes ay méthodes méthodes yi nga xamante ne dañ da ngeen raxas sa kanam parce que y a des femmes yoo xamante ni elles se créent elles des infections mm-hmm. kanam dafa am ni ñu koy raxasee. nan lañ koy raxasee. Euh, boo demee cabinet ba pare. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañuy ñëw rek jël à partir de l'anus jël ko rek jaxase ko ak vagin bi. lu nga jaxas nga raxas ginnaaw gi ba pare doo ko ñëw ci. vagin bi non non non. ça ne se la partie propre de la partie sale tu nettoies le vagin d'abord ensuite l'anus loolu mu ngi créer jigéen yu bëri infection te xamuñu sax fu mu jógee te alors que ñoom ñoo koy joxe seen bopp. Euh, le fait que comme ni nga ko waxee ñenn ñi bon dañuy supposer. Euh, le fait que ñenn ñi di jël seen loxo. di ko mhm. dugal seen kanam pour raxas ko. Mhm. loolu des fois indi infection. bien sûr ba pare da ngay détruire sa flore vaginale. te la flore elle est irrécupérable une fois détruite c'est fini bonjour les infections amatoo dara lu lay protéger te am na ñoo xamante ne dañ koy def parce que dañoo set jël sa citéal minute bu ne nga jël raxas nangam nangam ça ne se fait saabu ordinaire bi rek amul lu ko gën jël ko nii da nga koy xub ci ndox raxas sa kanam ak moom en haut ba mu set. en même temps. de resserrer aussi en awi. saabu ordinaire dafay resserrer. juste nga jël ko raxas ko noonu ci kaw. nga koy raxas waaw nga raxas raxasaale ko ci biir noonu mais pas nga dugal sa loxo. ok tout sauf dugal loxo. ok waaw tout sauf dugal loxo. alors. Hmm. tey bu fekkente ne ni euh, jigéen buy sëy. Hmm. am na rapport sexuel. Hmm. ak borom këramam ba pare. quelle est la meilleure façon euh, de faire euh, une toilette intime. la meilleure façon mooy boo pare nga jug tu laves la partie externe. externe partie interne bi moom elle elle se elle se nettoie boole ci ngay naan aussi say say ceeb. aldanke say gowe parce que le truc là day des ci biir. sperme bi day des ci biir. te bu yàggee da lay indi infection da ngay jékki jigéen. da ngay jékki-jékki rek gis luy coulé si yow muy xeeñ des fois da ngay yaakaar ne que da nga infecté non parce que sperme bi dafa des te booy naan lu tàng toujours. da koy génne. da koy génne la la mauvaise partie lay génne. mais lu baax bi te sénégalais dañoo tàmm di di di wax ni ay gowe ay aldanke day day empêcher grossesse ou bien day yàq grossesse c'est pas c'est pas vrai c'est pas vrai. woowee aldanke ceeb c'est pas vrai yàq dara mënul yàq dara xanaa mu bañ mu bañ a nekk lu bu baax man mii di wax a yow di début à la fin de ma grossesse dama koy naan day defar sa yaram day defar sa yaramu doom bu bu bu day sept huit sa femme bi lay accoucher sax day kontaan mhm. parce que dafay indi da ngay da ngay am da ngay am odeur bu neex da am xet bu neex sénégalaise balaa moo kontaan après les règles rek lay naan lu tàng. alors war na ko def fréquemment chaque jour dafa war a bokk suñu ravitaillement amul arrêt surtout jigéen buy sëy bépp jigéen buy sëy war nga am sa braada à partir de 17h nga baxal naan chaque jour amul arrêt xam nga da ngay naan ndox chaque jour. Mhm. da ngay lekk chaque jour. lan moo tax doo jël soin de euh, ta de intime je pense que c'est important li ñuy waxtaanee nii. bien sûr elle en a euh, besoin moom da koo soxla. da ko soxla trop trop trop ndax. Mhm. c'est un organe comme tous les autres. da nga ko wax a toppatoo. da war a toppatoo boo ko toppatoo. du baax du baax. ba koy toppatoo mais toppatoo bi dafa am ni ñu koy defee comme li nga wax sànq. astuce yu bëri na ci fu mu ne ni lool ku jógee jox sa astuce. dañ koy waxtaanee.